un contact de notre cas, cinquième cas, qui a en réalité réalisé énormément de contacts. À ce jour, 26 cas ont été déclarés positifs, dont deux guéris et 24 encore sous traitement. Et 34 an encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés Dakar et à Touba se déroule bien. Leur état de santé évolue favorablement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale rappelle l'importance du respect des mesures d'interdiction de manifestation ou rassemblement, notamment à l'occasion de baptêmes, de funérailles, de mariages, de cérémonies religieuses, etc. Conformément à l'arrêté numéro 00 du 13 mars 2020 pris par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe que le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor servira systématiquement de mise en quarantaine de toute personne ayant séjourné dans les 25 jours précédents son arrivée au Sénégal dans un pays touché par le Covid-19. Nous avons une situation au nous 18 mars 2020 Institut Pasteur de Dakar ministère de la santé et de l'action sociale résultat est à maintenir moom ci ñaar fukki test ak juróom ñaar yi mu def juróom ñoo ci nekk positif ñett yi moom lañu wax cas importé cas bu ñëw ci dëkk bi ñaar yi cas contact la mooy cas yoo xamante ne ku ñëw fii moo leen wàll tey fanweeri cas ak juróom benn moom la mën a wàññi si réew mi di fanweeru kaa ak juróom-benn ñaar yu si wér bon nag mën nañu wax ne fanweer ak ñoom ñoo nekk su traitement actuel may wax ne patient yi nekk Dakar ñu leen di faj ak Touba faj mi mi ngi jaar yoon bu baax ministère la santé et de l'action sociale mi ngi fàttali que ne Sénégalais yi respecte tere yi xamante ne def nañ ko pour ndaje yi. Je suis nag mën nañ si lim ngénte yi nañ si lim mariage yi nañ si lim cérémonie religieuse loolu arrêté ministère de l'Intérieur beaucoup teng. ko ministère de la santé et de l'Action sociale Mingi ngi en ne de des pèlerins bu aéroport Léopold Sédar Senghor fii si Dakar dans ko jël def ko lieu de mise en quarantaine pour que képp koo xamante ne si ñaar fukki fan ak juróom yu weesu sa egsi fii si réew mi jaar nga si dëkk boo xamante ne da nga am Covid 19 te dëkk yooyu ñu xam leen bu baax dana la jël mettre la en quarantaine observer la bu baax pour xool ndax jàngoro ji dana déclaré wu si yow ba pare ñu lay fay door a jël loolu da woon danañ leen ko yëgal asalaamaaleykum wa rahmatulah.